mu jaar yoon wala mu ñàkk jaar yoon mu rafet wala mu ñaaw mu dëppook yoon wala mu ñàkk dëppook yoon lépp lo xamanteni mën nako def ngir xagn ay opposants am élection yi. pexé bobu dina ko def. té li ci gëna metti moy pexé bu mu mënti tek du rafet du bax pexé bu mu mënti def. ay dil yu soof nak laay gis ay dil yu ñàkk fayda dil yu amateur dil yoo xamante ni koy gis da ngay xam ni kuy teug dil yu mel chef de quartier sax waroko don doon waxumala président. dem na ba tay suñu administration. nga xamné ndey ji cheikh la warono teudé tëddee. na légui ba buy tëdd day jutu dugal nako ci yef yef yu ñàkk solo yi. té jutu fu mu am musiba mën na fa am. suñu justice dugal na ko ci ci ñàkk mbiru ñàkk solo yi. justice bi de léegi comme force dafa am ñu muy jàpp am ñu dul jàpp. ni muy defee politique salté na salté boo xam ne jël alalu réew mi. di seet nit ñi fu ñu gën a doole. day seet nit fi mu gënee néewee doole. mu jël alalu réew mi. wala mu ut ay moyens de pression. xool fu mu lay jekkoo. di essayer teg loolu sa kaw pour ne la ñëwal ànd ak man wala defal lii waa opposition. ba pare jàppee boppam ku mën a politique bi fi nekkee ba léegi loolu rek la. dong te moment bi ngay toog di xool noo fi yàggee réew maa ngi tumuranke réew maa ngi torox nga nekk yow di tëgg say dil te loo tëgg du baax du rafet moo tax fi mu ne nii jaaxle na jaaxleegul nànk sax mun nga tappale jënd ñu lay waxal fu nekk jënd ay patron de presse ku la neex nga truc ñu lay xalamal suba ngoon waaye sénégalais yi ni ñuy dundee loolu loolu du ko la de sénégalais ñu ngi lekk ba suur ñu ngi naan ba suur ñu ngi naan ba suur ñi ngi naan ba suur ah de man de mosuma naan ba suur naan ba mandé kay njàng mi dox na. amul ay tànk. paj mi dox na. système sanitaire bi ci boppam moo paralysé. ñu naan ma effet wax na. balaa may am lu ma gën a metti nag man ma gis ay tiwitam. yow bi di kenn du la gis nga tiwite. tàkk doo ko def. xalaatu ko. étudiant yaa ngi nii mi ngi mi ngi mi ngi tàng. te bu doon ci réew mu normal. wax na ci. yu mel nii ana kañ la wax. du ngeen mës a dégg Macky wax ci. santé mu ngi grève. Macky du ci wax. te ñëpp yi. Macky du ci wax. problème yu toll yëpp am ci réew mi te yow njiitum réew mi kenn déggu la. waaye ceebu jën. lan la def ci ceebu nekk fi naan day def poste. non gisuma moom loolu la war a bind. mu naan xaw ma lan que le Sénégal ceebu jën nangam nangam. ah non kii man maa ngi doog a xam ni kii ceebu jën la gën a fonk ko Sénégalais yi. xoolal xoolal li muy dugalee loxo bi. yow ya, xol gis du ceebu jën dong lañ moom de kaldu kaldu bi sax ba ci mbaxalu salum mbaxalu salum yooyu yëpp suñuy plat la ak ban sax cere mbub voilà très bien sama plat préféré yooyu yëpp nañ ko yóbbu est ce que du ceebu jën moo gën a officiel àdduna bi xam na ni ceebu jën nag sénégal lañ ko xamee loolu moom dafa leer donte gambi dina ko togg mali dina ko togg côte d'ivoire sax dina ko togg ak mauritanie burkina mu yow ceebu jën di international Mom, su meloon ni mu war a mel tey sénégalais dañ lekk ceebu jën déet dañoo lekkatul ceebu jën ak coof ci digg ba ah boobu yii boobu bareetul jën daa jafe réew mi metti na légui wa sax lañuy défé defee ceebu jën ah saa ah, yow nan nga affaire yi de xanaa da nga daan duggi ah ma da nga daan marché <laughs> ah agal jaay na géej gi yëpp dafa yamul ci géej gi rek sax yoy yépp limuy woné moy président bu matadi rem tapali gi dafa doy légui néna da fay indi wat poste premier ministre té mo togon ba mu neex ko mune mom légui mom dong kot doyna pour yor réew mi te munu ci dara tay néna day délo ci premier ministre man li ma bëgg xam mooy lan moo tax mu bëgg a indiwaat poste premier ministre. nee na comme day dem Union africaine. waaw dootul am jot pour Sénégal. ay waaye ndaw. doy waar a ngi noonu. lii kay romb na waar ab tool la. lu doy waar man nag yërëm naa Sénégal. lan moo tax. koo xam ne bi muy nekk fii yor mandat Sénégal rek mënalul dara réew mi. kon ngeen xam ne moom bu demee réew mi dina gën a doy waar. tey mu naan maa nga dem Union africaine ñaari fan yu ne mu jël avion naan day dem défendre l'Afrique. naka ngay défendre Afrique alors que yaa ngi jaay suñu pétrole. jaay suñu gaz jaay suñu géej jaay suñu zircon jaay suñu suuf si. di yàqate suñu xaalis di jënd ay avion de soixante milliards rien que pour sa bànneexu bakkan. ba pare di wër di wër di yelwaan. loolu mooy sa gouvernance waaye ba 2024 <laughs> xaaral nag.

xam nga man pendo dama la bëgg naturellement wallahi wallahi bala nga ron xamni dama la bëgg mak yow ñu bokk génération suñ borom moy dogal rek ni la ko dogalé waye nak comme yalla dogul ko te man dama la bëgg te yaangi dem wa safurlaa yaa ngi demati wala <laughs> bëgg denk quoi dafa am lo bëgg wax bu ma gëné yedd dina la yedd dina la yedd de dama la bëgg yedd sénégalais dañ la bëgg yedd nan ma ñaanal koy ñepp ngi bolo ñaan yalla ni yalla nang fa top ci barki sayidina muhammad képp ku stan vidéo bi na wax ne pen gi yàlla yalla nako yalla defal jàmm ci sëyam bi point. point point. lii rek laa ñaan barke Alaaji man li ma ñaan bariwul de. bariwul kay macha allah mais dinañ ñaan bu soobee yàlla def lépp luñ mën bat bii yoon moom nga toog. bee sax damaa toogoon. waaye bii yoon dañoo bëgg nga gën a toog moom nu tudd sax comment il s'appelle monsieur comment. Diouf Racine maa ngi lay ñaanal bu baax baax di la foon. boo ko foon noonu. ku li loolu. ok Diouf Diouf Diouf Racine Diouf laa war a suli fan si yow lay demandé lii jëndal col crazy col force ñaam jooju ne fi dëj bu fi jógee yàgg fi sax fi dàgg seey fi yooyu yëpp jënd ko li laa war su li nga teel ñu ko ñun fans yi dañoo sonn bi mooy suñu dernière heure ménage Pendo mbaa di nga toog. billaay wallaay wa taala. président Sonko dé dénkal ñu ko ay baat nee ko mu toog fa. ah. ma ni bii yoon bu demee li laay war su li na fa toog. <laughs> Sonko waxal te nga bareetaan yi. man damaa ñëw pour toog. très bien. sëy sëyuma damaa sëy si. très bien. ne leen rek yàlla na ko yàlla defal jàmm xaa gàtt na. gàtt na lool waaye yow ñaan googu du la jàpp toog gi moom foog nga forcé la ko diglu ma fi boo demee bul wax. léegi buñ ma xasee. bul wax. Euh, buñ ma tooñee nag. bul wax. léegi buñ ma saaga. bul wax kenn du la saaga. eh waay sàmba <laughs> yow sëyal sëy bi rek. man sëy rek laa bëgg. du yow yaa doon ñaan mi ñaareel nga bëgg a doon. man deuxième femme laa bëgg doon. ñaan gi nangu na macha allah. barki xalifa Ababacar si li ma ñaanoon yàlla yëpp daf ma ko may. ñaanaat ko nag ne ko bii yoon moom déj laa bëgg a def. dégg waaw. mbaa doo dem di dund ay toi et moi. non non non non non. am hmm. no like this. mu ne. am no like this. très bien boo demee moom booleel famille bi yëpp ñu doon benn. ñu am like family. you do everything you can to bring the family together. You know what I'm saying? Yeah. Mm. On peut compter sur toi. Du big deal. Big deal. Am nga big deal moy lu ngandé. Yeah. Mais lol du big deal. Kon yes. Alors, euh Alimato. Pendo ak Moussa Diouf Al Khairi Jibna loy wax Pendo. di ko ñaanal rek madame diouf yalla na sey bi barkel yalla may ko ci njabot gu barkel ci jëmmi rasulullah alayhi salatu wassalam bala weer wede mu wallu ñu ñun aussi oui wallah alima yow da ngaa sonn bay woote wàllu man dama gëm sama bopp ah yow gëm sa bopp jëdew rek dara Mana? nag alima lan ngay xaar ba léegi man mi yow kay ku baax ak yàlla ah alima est-ce que lu yaay dàkkee tamit non musuma dàq kenn nag ñoo ngi ñëw mais mana naa dañuy mujjee tëb Mana na amuñu fit gaynde laa xaar yow kay bul xaar gaynde xaaral ñay <laughs> man damaa nangu dogal boo nanguwul ndogal nooy def man de toute façon yàkkamtiwu ma ñàkk pexe <laughs> muñ nag dee leen muñ dee leen ree ree dafa baax ci nit bàyyi leen mer ree leen waaw kay mu ngoog dee